dama faa ñëw tey da ngaa seetaan si wala da andi mbër waaw ginnaaw ba ma sant yàlla ju seen tamit sant suma ñaari waajur sant suma yaakaar alaxira mi sëñ Babacar di ñaan yàlla si barkeem nit ku baax la moom it waaw ne dama indi sama mbër caat di ko ñaan yàlla me mboy mboy eh, waaw mooy bëri combat spécial waaw mooy bëri ñaan yàlla mee ko ndam guy si barke Mohamed mais mais ñaata mbër nga ngeem waaw xam nu mu toll bëri na wax dëgg yàlla eh, suñ boor man man mais xam mbaa xam nga ne ñàkk laa xam wóorul mbër yi. mbër yi la xamagul. waaw waaw waaw yàlla baax na fii yàllaa fi ne yàllaa fi ne ñu bi Cheikh la ñu def ragaluñ ko bépp mbër bu ñu àndal am na yaakaar di nga am ndam bu soobee yàlla. su ma fàttali ko armée bu ngéwél nga mujjee ngéem. waaw moom laa mujjee ngéem waaw armée bu ngéwél. mais dafa mel ni da nga caa xam nga yaakaar dafa fort. waaw armée bu ñu bëri ñaabu ndaw. keroog da ngaa wàcc takk ndigli jël butéel yi di ko sotti. waaw armée bu ñu bëri ñaabu ndaw mën naa ko indi ñaabu ndaw daan ko. combat bi yàlla si guddi mu woo ma ne ma dama bëgg su ma amatee nga jàppale ma yaakaar foo la mën a yem wóolu foo la a yem moo tax mu amee bésam ma tax waaw sama ñi la armée sa diggante ak mbër yi waaw moo tax ku si ma ànd ak yow ñëw ànd ak la rek mhm. loo gisee tolluwaayu lamb waaw lamb mi ngi avancé mi ngi mi ngi dox mi ngi neex wax dëgg yàlla di ñaan sama xarit sama lépp Modou xarañ loo yàlla may eh. na client de Ama Baldé fii lay daanoo fii. dégguma fii lay daanoo fii. sëllu bu ndaw. fii lay daanoo nga bi buntu këram la nekk. Ama Baldé fii lay daanoo. buy ñëw day dox. fii lay daanoo. Ah, bi man Ama ngay waxal de. Modou Lo bi. bilaay dina ko daan. sëllu bi. dina daanu de. borom waxal de. dina daanu de bu soobee yàlla. Modou da koy daan. si carton yàlla mais sëñ bi loolu foo ko teg. waa am yaakaar ak iman. salaatul faatiha jawratul kamal moo mën lépp jinne moo mën dëmm te boobaa dinañ ko xam pom du moroomu new pom du moroomu new ba tey Modou Lo kii mooy Serigne Mor yaa baax kii mooy borom Malika kenn du yow taalibe Serigne bu baax du ñuy sa borom baax maam Xaadim maa ngi baax di la si wàccuwaay yàlla nga am jàmm jërëjëf jàmm ju